e Sénégal am na lu fi xew salaamaaleykum. waaleykum salaam. Hmm. ma ne mu wax mu woo njaboot bi mu toog eh, mu wax dëkk njaboot bi eh, joobu ma ne kontaan na trop ma ne kontaan na trop jóge na Mali ma ñëw ma toog ci kër bi lii bi toog fii lépp baax na lii ma la wutu fii lépp baax na. Mhm. Eh, bii demee ba xam ne léegi mu ngi bugg dellu Mali. mu toog mu toog mu wax njaboot bi yëpp man kontaan na trop. man kontaan na trop man kontaan na trop. te eh, yàlla mu def noonu mun nga boole doomu aadama bu leen boolee bu leen boolee tey jii ñoom ñëpp ñu ngi ànd suba kii mi ngi dem mi ngi dem gannaaw suba ñoom bi ñëpp ñu ngi ñëw yàlla mu mm. def noonu war sakk mu jóge fu ne. Eh, balaa man dem nag ma génn kër gi ma ko jóobu bali ma xaar. déet ameloo ma àq la amel àq man mi nga xam ne da nga jóge sama biir kër gi dalal ma sama kër gi toppatoo ma ba ba ba ma kontaan si yow kontaan naa si yow baal naa la àq baal naa la ameloo ma àq rawa jabaate jabaate baal ma naa la baal ma àq baal ma àq baal naa la baal ma àq bëgg ñu woon de na àq baañu àq baal na àq baal na àq ñëpp axa bari na ñëpp adduna adduna noonu la am adduna noonu la dara yàgguloo keneen dëkkulu fenn adduna noonu rek bii mu ñëw bii mu dem bii eh yàlla mu defa bii xam bu demee duutul gis ci mu dee bi yàlla na fi yéex yàlla na fi yéex ma ñëw fi ay ati ati ma fekk leen yéen ay ati ati ma ñëw ma fekkee eh, am na jabar bu baax eh, eh, ah, ma yow addina bi noonu la eh, bala ma dem na eh, am na lu xam ne dina ko wàkk eh, ndax kër bi man ne fi bëgg jàmm mhm. mais jobbu mhm. man bu ma demee mhm. dama yóbbu xare bi Mali xar ban kan banni banni Adama xoolaat nga li nga wax banni nga wax de <laughs> banni dama kay yóbbu xar mi banni xay mi <laughs> man a am na lu ma gisi moom la ñu tabaskee de. Ah, man maa appoo woon kii sax. man ay yow ma ne dama gis dinaa la ko waxaa. Ah. Ah. du xale bi mu ñëw si àdduna pour xale bi mën naa a fukk ci bat ma dem Mali am na dafa fekk na amoon na lu ma gis ci kër gi fii dem ma fi génne xale xale bi. waaw eh, bi mi ngi bon. ah mi ngi toog ci kër gi kër bi du juboo jàmm am tuuti ko loolu ba ceeb. man a xamal ne li taxee ma bëgg carabine ma ne ma yóbbu boobu ma yóbbu man a xam na bu ma ko yóbbu gis naa leneen loo gën a yaatu lu gën a rëy bii. fa day day ñun. Eh, bu loo seet leneen ta bàyyi ban mi ban eh, mii bàyyi ko bàyyi ko ñun eh, ah, ah. bàyyi ko jël wax naa. déedéet ba yóbbul jëlal ah. jëlal ah. bii ma bàyyi kar bi ma taxaw ci ginnaaw ba lu mu dugg oto ma dem male kar bi mu ne dee fii. ah ah, ah, ah. Mhm, mhm. wax jël kon yóbbul. Mhm, ñun moom la ñuy tabaski de kon yéen ñuy tabaski. tabaski bi mu ngi jógee arraché. Ah? ma nga gis yàlla yonte bi mi ngi takkawu mu ngi joti kari yaa ngi wee ki mu bare bare kari bi mu séddilee kari bi mu deme nii kari bi mu deme nii kari bi mu deme nii kari bi mu deme nii kari bi mu dem mais benn kari bi mi ngi jóge ci kaw mi ngi def raaraaraar eh foo jëm mu ko fëre mu ne kari jóob bi mu ne ci bi day day la fii bis tabaski kar bo kar boobu nga tabaski man gisoon na foofu dama gis nga kii li leen wax xar mu waay mën a tabaski xar mu jóge aras ne cëpp ci seen diggu ëttu papa bii xay ah xar mënul gën moom xar yoo kasube ko gën kon nag cee mm-hmm. xar maa ngi fi yóbbu mm-hmm, mm-hmm. xar mi jóge aras ni Eh, eh, léegi eh, bàyyi mu dem mu jël bagage bi saag bi eh sang sa kilifa xar bi ñu ñu dem ñu ñaan ci dem waay jéema ko di ñu wéetee nag oh, ah oh, bogo ay oh. waay bani waay mii ne la metti banni yaa ngi dem sa dem neexuma li nga ñuy bëgga bëgga daxam ñoo la raw banni yaa ngi dem sa dem neexunu li nga ñuy bëgga bëgga daxam ñoo la raw seri boo bul ba ne day ñibbi li mu ñuy bëgg bëgg ndaxam moom mu nekk ak moom ba ne yaa ngi dem sa dem <laughs> hmm. ne xunu ah, xunu ñuy bëgg bëgg sam ne xuñ sombi naa la xuñal naa la la ma la toppatoo boobu lépp leen ñu ne da ngay waaw yàlla xam na ne yaa ngi dem waaye dinaa la topp ah ndax yow sama xarit nga fu ma wéetee yow laay wéetulu ko yaa ngi nii sax yaa wax yaa ngi ne moo tax munoo munoo ma sori fu ma nekk nga nekk fa ah, sama xet yow rek ko xam si àdduna yow moom yow nekk fu nii rek buñ la ne yóbbu rek nga jàpp yóbbu i ñaane seen bàyyi soxor seen baay bani xam-xam bi xam-xam bi dina fekk yow nga ñor bu baax ma jox la kam-kam bi bu ma dirigé rek naa la jox kam-kam bi. ane yaa ngi dem sa dem neexunu dina ne bata bata ndaxam ñoo ya yow ba jóobu jóobu jóobu jóobu waaw kay ay yàlla la la waay ay yàlla la la rek bari na bari jóg jóg ay yeneen bandi ñooy ñëw suba sama yoon si yeneen bandi man bandi bi maa ko yor oh. ah bandi waay jóg jóg Eh, waaye bu dee ba Diop laa wax xar mi jógee aras man xar mi jógee aras xar mi jógee aras waaye man xar mi ma tàggal sama bopp laa xam kan nga fi gis mu am xar mu wàccee ca waaye bàyyi ma waaye yow dama jàpp dama bëgg ngeen dimbali ma dimbali ma yéen daf doon jeex ba ne dem naa ba ne dem naa ba ne daal ni weetal nañu daal ah, ba ne dem naa Sénégal am na lu fi xew xam naa ne da am melokaan. femme na lu ñaaw loo xamante ne. xamoo lu ma la bëgg a yëg. mu ne ku ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man ma indi problème. sa bopp. ay xar mu ay. Tabaski 2020 les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Kër Saner. les docs de la scène les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm cey fu ñu jëm ak Saner ak Mbandumbe ak Saner ak Ñanku le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7. ñàkk jox cër ba yow respecté wu ma surtout yéen aawa yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yéen pour yoon yéen yéen seen jëkkër seen borom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année tabaske benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf-safal. yaa tegg lii. waaw. bu ma njëkkati nga ni mbote. loolu mooy. ray poobar yi man du ma si nekk di sonal sama bopp sax kii ba yeboo nga ray ko ko wala nga maye ko xool noo def moom man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga ay kebatu nag ay wax yow yow yow lay kii tëbel nga dugal dugal dugal dugal papa yow nelawaan bu bon nga am ni nga nelawee baaxul dara tabaski ci fajar laa ko jël inchaallah eh, naa la ko indil ba ca kër ga naa la ko indil ba ca kër ga jërëjëf ni ma mbokk ya ah, da ngaa amum xar pour bëgg xar mi tëbu waaw dama bëggoon xar mi tëbu ko ah, waaw loolu kay la yow sama papa tëbukat bu mag baa ngi nii <laughs> aka ay ci loolu yéen da bëgg ay affaire su ko trop lu loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne amul à distance amul danger moo tax amul danger léegi xaar ma commencé ma daal di wala sama karaw gis nga am naa karaw <laughs> xoolal xar mi lu mu toll ah. tons xar bi maa ngi koy xontu li nga jox yow maa ngi koy def mais li xar bi di def day tiire rek. xar bi tëb rek. tëb mooy lan. xamoo luy tëb. ala gawsu gawsu gawsu kolle neel gawsu mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw gawsu gawsu. la ilaha illallah. liggéey gi dama gënal ma xar yi baax xarmu corona kii ba mu ñëwee ci kër gi di daanu di wàccoog di di di reeku laan la xar mi dafa corona nga ne ma déedéet góorgóorlu ba indi fi 500000 teg sa loxo nga may def nii di ma jéem a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution euh, da da nga koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb bii dafa noir et blanc xoolal déet déet Cheikh léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet xoolal nga ne ko bëy ngay tabaskee kan ci sama yumpaañ sa yumpaañ lu ma ciy wax ak moom lu ma ciy wax ak moom moom ndigal lay wéyee di baal di jël sama ginnaaw per bëy bi laay bañ a dégg ci kër gi bu ñu wax wax du bëy waxu bëy la bëgg nga teg xar mii des ci kër gi moom laay tabaske bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw neel waaw yar réew waay comme maa ngi ndax sama bopp rajaa noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa lii lan la ah daal yow per da ngay wër say turandoo ca wa xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na eh, Tange yaa ngi imaginer ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo ko imaginer action bu rafet la de per gu xar tas na këram per gu xar tas na këram per eh, gu xar tas na këram per gu xar tas na këram xippileel seen bët yi xool fan lay xewee